siyaare di leen baalu àq di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ñu ñu di ko waajal ñu leen di nuyu ci ndigal ki nga xam ne mooy borom liggéey bi di fi indi Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu ñaan ñu yàgg fi loolu te ànd ak wér lañu fi ànd ak kilifa yu tedd yii nga xam ne jox ndigal ñu ànd ci liggéey yàgg ko def ba yeesalaat ko ñu nekkoon ci loolu ci te ba tey liggéey bi nekk ci loxoom bu fi Sëriñ Tuuba kon lu ñu fi wax rek ci liggéeyam ak kàddoom ak baatam ci lañ koy ngi yëkkati ak nuyoo ñu ko teg ci loxo gouverneur de la région de Diourbel di góor di mbay ak mboolem chef de service yi fi teg yëpp di préfet bu Mbàkke ak sous mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi di chef de ci région ak yi wër bi di leen di yóbbante nuyoo ci nga xam ne moom lañ fi teewoon di président de la République Macky Sall moom mi nga xam ne moom la teewal ci jotaay bi te li ngeen war a jox ci kàddu ñu war a jaar ci ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye mooy itam ñu dugg ñu moo àgg ci moom kon. ginnaaw bi ñu nuyoo sant gërëm leen di ñaan bis bi ñuy bëgg a tàbbi di màggal Tuuba li ma ko waxoon bëgg démb moom borom waajal na ko ndax waajtaay wi li ci ëpp mooy ginnaaw bu ci doxee liggéey da cee boole waale li tax loolu moom ci loxoom la nekk moom lañ ci yaakaar te. xam nañ ne am na suñu kilifa bu baax bu daa wax ne kuy defaral ñëpp seen bis sa bis mënta waxaale kon màggal ko xam nañ ne borom a koy defaral boppam li ñu ci war nag ñun ñi ko seq mooy ñun koy saytu ak yéen ñi ñu ko seqal mooy kenn ku ci ne xool lam jàpp ne mooy tax liggéey bu baax lay tax liggéey bu jot mu def ci yitteem def ci jom def ci posté def ci àll kon gouverneur li nga wax. dégg nañ ko bu baax kon ñu la ci sant di la ci gërëm di fas yéene yi ci liggéey bi di xam ne màggal gi day mbir mu màgg màgg mbir mu rëy ndax xew-xew bu ñu toll bëriwul ci adduna si ndax yi nga ko mën a dëkk leen néew na Afrique amul bu ñu toll Sénégal moom amut xew-xew boo xam ne lu mat juróomi million ñu ko ci xayma te at mu jot foo ko natt bu weesu kon boobu xew-xew képp koo xam ne yàlla suñu noonu dogal na mu nekk ci sa biirum réew mu sanal la saf sag la moo xam nga bokk ci yoonu murid tax moo xam nga di jullit moo tax moo xam nga dëkk ci réew mi sax te bokkoo ci lislaam kon képp ku fi dëkk rek na xam ne màggal gi sa bisu ndax bisu bu Sëriñ Tuubaa ne na ko ñëpp sant la ci wàllu nit ñi natt ci xayma ci wàllu koom-koom itam muy jural Sénégal njëriñ yu bëree bëri kon màggal gi moom rek mooy feet bi nga xam ne réewu Sénégal bu ci pertewaay la ci gën kon nag jàpp naa ne dayo bu ñu ko jox ak yitte ju ñu ko jox rek waris na ko yokk waris na ko jox lu ko ëpp ngir bu ne bu fekkoonte ne amuloo njëriñ réew mi itam te xam ne taalibe Sëriñ Tuubaa yi ñooy bàyyi ko fu ne ak jullit yi ñëw di màggal si Tuubaa kon loolu mboolem lu ci wax rek warees na ko def rawatina nag muy loo xam ne boo doon xool ci koom-koomu Sénégal wax nañ ko waxati ko kon jëru del si waat waaye amal na njëriñ Sénégal amal na njëriñ réew kon lépp lu yëkkati def ko ci màggal gi yeyoo na ko ndax ab dayoo moo àgg foofu kon nag yéen ñu ngi ko seqal ñu ngi leen ci soññ bu baax yitte ñu ci daal def ñu kon ko yokk ndax bañ a yem rek ca defoon naa daaw kon la ma defoon daaw bu ma ko weesu ndax loolu boo ko defee rek manquement di leen bëgg ndax mënoo xayma ci defoon daaw mu mu toll ci yem wala mu cëkk boo ko fa yebalewaatee bu déwénee day manqué kon loolu mboolem chef de service yi fi teew na ko ñëpp sóoraale rawatina ren. màggal gi dafa tàgguwaat ci loo xam ne waxoon naa ko fi daaw daaw jëg sa laa fi di ko dox ne nañ ko bàyyi xel bu baax ndax Tuuba màggal gi du doxaaj ñaari at te tàgguwu ci biir nawet kon ren incha allah bu àndee dogalu suñu borom bu fekkente ne nawet bi màggal gi tàgguwu ci biir itam day fekk kon te fii mooy wax ak bi mu tawee rek Tuuba mbedd yëpp fees na ba kenn amatu foo jaar kon loolu faw ñu sóoraale ko ci xool ñu ñuy fexee ba ndox mi génn ak fexee ba saafara loolu ndax bu ñu ko saafaru dana ñi te dana jur ay jafe-jafe gàllankoor yoo xam ne ay wér gi na caa ndax nawet xam ngeen ni muy ànd ba ca desaat mooy wàllu ndox mi ndox mi itam forage yi wax ne ni ñu ngi koy saytu di ko defar. waaye waris naa fexe kon ba góorgóorlu ba li ci faanoon faanoon ci forage ñu defaraat ko waaye li ñu mën a yokkaat ci forage ak excitation réseau bi ngir mu mën a àgg ci quartier yi nga xam ne ndox mi àggagu fa ndax Touba dafa rëy ndax at mu jot ni ñu màgg dafa ëpp moo tax foo ko yabal bu déwénee am na ñoo xam ne danañ dem ba dox ay kilomètres te duñ am ndox loolu tam te ba ñu tox ci seen dëkkee yaakaar xet li ko ak yërmaane moo tax ñu def ba ca desaat mooy wàllu courant loolu dëkk bi ñu ngi ci sàkkuwaat nañ ko daa sàkkoo ci yéen daaw ci mën a jàpp rek mu wàññi ko ndax lëndëm fu mu bari rek xam ngeen la ñuy ci wàllu ñi nga xam ne eh, bëgguñoo def lu leer wala ñu nekk ci ak jubal kon loolu itam ñaar yooyu bokk na ci yi ci gën a fàttal bi ci desaat mooy wàllu yoon yi nga xam ne xëy na ren xawoon na xat waaye luñ ci mën a góorgóorlu ci engagement yi ñu ci jëloon daaw ci quartier yi nga xam ne war na fa àgg ñu fexe ba def ci yitte fexe ba fii ak màggal luñ ci mën a def góorgóorlu ñu def ko li ci mën a àgg li ci mënta àgg itam ñu fexe ba bu màgg bi jàllee bu bañ a taxaw waaye ñu continué daal moom la ñu ci ëppoon solo ci bi moom xam ne ni ñu ko daan defee dañ koy defee kon loolu amul ci soññat kon loolu la dañ amoon ci luñ ci wax. xam naa bu ñu joxee gouverneur mu tàmbali réunion bi bu ko defee bu préfet jàngee rapport yi nga xam moom lañ defal Mbàkke ak fi ñu war a jëmaat lu ci war a dolli ko rek Serigne Ousmane Mbàkke bi nga xam ne mooy coordinateur comité bi dana ci wax mboolem commission bi itam képp koo xam ne war nga jël sànni kàddu dana la ko wax nga sànni kàddu yi nga xam ne war nga ko leeral bi ci des it mooy commune euh, bu Touba Abdoul Ahad Ka moom itam lu mu ci war a leeral ci wàllu li nga xam ne moo aju ci wàllu bi ci biir wax ji moom itam leeral ci des mooy kilifa yi nga xam ne teew fi te ñu seq liggéey bu jeexee ñoom itam kenn ku ci ne li nga jàpp ne mooy def defar gën a defar liggéey bu gën a baax ñoom itam ñu sànni ci kàddu ñu àggale liggéey bi ñaan ba déglu jàmm assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala